bi ma ko yëgalee li nga xam mooy suñu ceeb ci kër gi yàlla moo ko def yàlla na ci juróom-ñaari kaamil loo xam ni jagle nañ ko ci bés bi si naaj yi mii nag ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant wax yàlla xaw ma ñaata yoon su ma def jotaay bi waaye yoon wii moom daf ma see boole fekk na yàlla boole woon nañu bu yàgg xam naa loolu yàlla fexe. Seydi Haadi Cheikh Mouhamadul Haadi Ibrahim bon boole ko nag moom yàgg na nag loolu yàlla def iaada ba yoon bi mu boole ma ci jotaay bi wax dëgg yàlla ñu ngi santi di gërëm suñ doom yi suñ sëriñ suñ xarit Cheikh Maam Alaaji Abdullah Maam Alaaji mi nga xam ne barki démb rek la jotaay lu mel nii ñëpp jot fekkee ko muy koo xam ne moom itam ñu koy ñaanal yàlla tànk yii mu jaar yàlla na ko ci yàlla saxala te di ko fekkee daay ma abadal te yàlla yokk xam-xamam te musal ko te wattu ko te barkeel ko ñun muñ ci wax lan may gërëm leen sant leen ñaan leen yàlla ñaan nañ ko juróom-ñaari kaamil wax na ma ko teel na ma ko yëgal te suñ ceeb ñun ci dëkk bi ci lépp lu ñu yëgal rek ci def léegi rek bi may ñëw ci imaam laa bàyyi ko la ma wax sëñ daara borom alquran ma sant si lool te loolu wax na ko barki démb ci jotaayam maam alaaja lii gërëm nañ ci sant nañ ci ci wax yi nga xam ne tey dégg nañ ko yëpp yi rafet la lépp luy wax rek loo xëyoo la xam nañ ko daan nañ nekk yaa maam Demba Thiam alhamdulilah rabbil alamin jaar nañ ci moom maa moom xamante nañ bu baax ndax boobu moom sama ni yaay baraam moom it ñoo nekkoon fii ay xarit sama ni yaay jii ngeen ko tuddee itam macha allah daa mahmoud sama ni yaay la yow moo def loolu rafet loo xam ne da ngaa génne taarix kon loolu lépp ñu ñaan yàlla yal na yàlla saxal leen te barkeel leen te barke Mawlana Cheikh Ibrahima lépp lu ci gënee yàlla na ko yàlla sabab te jox leen ci yoon bu mag dañ di ko fekkee daa iman abadan ñu gërëm ñu ngi sant fas yéene ñaaral maam alaaji mi nga xam ne incha allahu danañ fi déggee te danañ fi jëriñoo yal na yàlla yaatal te barkeel ko ko daa iman abadan gërëm nañ sant nañ alhamdulilah rabbil alamin